sama taxawaay mooy déjà sentiment de désolation parce que euh, groupe bi Bougane moo ko moom c'est vrai mais il des centaines de personnes et de maire de famille yoo xam ne ñoom ñu fi gagné leur vie dignement donc le président de la République en tant que père de la nation moom moo war a sauvegarder les emplois moom moo war a accompagner les entreprises surtout euh, yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci privé bi te may fàttali ne ba muy teg euh, le plan Euh, d'action prioritaire ajustée accélérée euh, au mois d'août à Diamniadio dafa waxoon ne premier pilier bi euh, mooy consolider les acquis ku dégg tubaab xam ne consolider les acquis mi ngi démarrer ci sauvegarder les emplois existants donc je pense que groupe bi jafe-jafe yi mu nekk bokkul ci liy sauvegarder des emplois mais liy jëm ci perte ay emplois la te président du loolu la woote moo tax it ma koy lancer un appel solennel parce qu'il y va de sa responsabilité personnelle en tant que chef de l'État de protéger les entreprises de protéger les citoyens sénégalais fépp fu ñu mun a nekk muy biir réew mi ak bitim réew. ñu am naqar nag naqaru xol loolu wax dëgg yàlla xam naa pour ñu wax sa dina jafee ndax dañoo amoon invitation ci média bi tey pour ànd ak ñoom soutenir leen ci xeex bi waa jàppale leen ndax xeex bi xeexu Sénégal la ndax bu ñu tëjee lii nii emploi yi nga xam ne dañoo ne ci biir damay laaj gouvernement bi nga xam ne xëy na ñoom ci ñoom la jógee lan lañ war a def. Euh, dafa am en tout cas moom dafa am lu leen liyee moo ko fondé mais nag moom liggéeyu fi dafa nekk ci fi boppam mais personnel bi nga xam ne ñoom tey ñoom ñoo nekk ci D-Média tey ñoom lañ ñëw li nga xam ne fi ne tey maanaam moom leen daal moo leen daal parce que ay njaboot lañ yoo xam ne seen li ñu yore seen kër fii lañ koy fii lañ koy jëlee voilà mu doon loo xam ne fi ne tey bu buñ ko bëggee sàkkal pexe ci jamono yi ñu toll ak nii nga xam ne noonu lañ noonu lañ koy taxawale ñooñu dina leen dina leen yóbbu en semence quoi état boo xam ne maanaam dafa war a wutal xëy ndawu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey ñooñu bu ñu ameem xëy xëy mi min am waruñu leen koo xañ te ci xañ leen ko ci leen taxaw te loolu yaakaar naa képp koo xam ne góor nga wala jigéen wara a xëy maanaam daani sa doole boo gisee lu mel nii war nga ci maanaam taxaw ba lépp ñëwaat en ordre comme na mu nekkee woon ci bu njëkk ba. yàq yàqu mais defe naa ne maanaam groupe des médias nekkatul group boo xam ni Bougane moo ko moom wala ñu fiy liggéeyee mais nekk na loo xam ni sénégalais yëpp ñoo ko moom. Sénégalais dañ si gis seen bopp daal saa bu ñu amee lu leen naqari wala lu ñu bëgg a wax loolu lépp fi lañ koy mën a waxee li ñu bëgg di ko gis di ko moom moo leen koy jox kon yaakaar naa kon nekkatul yëfu bugga nekkatul yëfu ñu fi liggéey mais yëfu sénégalais yëpp la ko laal daal moom Sénégal nga laal loolu laa jàpp. senegal ñun lii la ñu bëgg bu ñu amee lu ko naqari ñëpp yëg ko li ma waxoon loolu laay waxaat Macky Sall ñun ñoo ko fal fulla jin ko amee ba fal ko nañu am fulla ju tol noonu jëlee ko fii Macky Sall suñu surga la ñun dañuy tëdd di nelaw moom mu ñuy doxali suñuy soxla mais waxuñu ko yow buur nga buñ lay nuyu dañ lay sujootal ñun loolu yëkkati wuñu ñun man ñun bugaan moonu ëppal njëriñ Macky Sall ndax bugaan dafa taxawal société jël ay doomu aadama ñooñu ci liggéey yor seen ay njaboot dafay élocation dafay seen ay njàngi doom Macky Sall président de la république am na caisse noire waroon na mën a ubbi société jël fa ay doomu aadama ñuy lee société président bi la ñaata million doomu aadama ñëw fay liggéey ci tarangaam yàlla may na ko loolu kon moom bu deful loolu warul ñëw fekk bugaan commencé soro ba diis di dimbali doomu aadama di daana ko jog mu taxaw ni day tëj télévision bi ndax ay élection waaw ñun loolu la ñu gis parce que yàgg nañu gis sa ay élection yu ñëwee ñu ni tëj nañ télé bugaan bët yéen waaye xam na la bopp antan ñun loo même bu amul ñun suñu xel lool la ñuy jox parce que bu ñu bëggee ay xibaar yu wérti wóor ñun fii lañ koy dégloo bu ñu amee lu ñuy naqari fii lañ koy dégloo mais contre naa tamit groupe de presse yi gaynde day jàppale moroomam gayndeem nit day jàppale moroomu nditam mais lii du yoon réew mi bu réew mi ñu ñoo ko moom bu ñuy xaar muy tàkk ngir benn Macky Sall Macky Sall barki démb lu jën avion bu bees bu gisul lu mu xam da ciy dugg ak i jabaram ak i ndopp fameem dem noppalu ji bu réew mi tàkkee moom yoonam nekku ci su jeexee mu ñëw toog daal di jiite waat climatiseur di ko ëpp mu lekk ba suur naan ba man yàlla may na ko teraanga ñun nag ñun ñu moom réew mi bu ñu xaar réew mi tàkk nañu waxtaan ci seen biir ñu teg ko ci yoon man waxuma kenn taal réew mi dama yor ay njaboot yor ay mbokk ñun bu réew mi tàkkee man duma ci mucc samay mbokk duñ ci mucc suñuy xarit duñ ci mucc bu ñu taal réew mi buñ fi indi histoire nañ ko teg ci yoon ñu lijjanti ko société bi dema continuer waat ci liggéeyam loolu la ñu wax. waa xam nga je suis très mal placé pour mën a wax ci dossier bi parce que teguma ci gët. mais en tant que un nom responsable li ma mën wax mooy euh, xuloo bu amee wala xeex doo jéem a xam kan moo tooñ da ngay atte ba pare ñun suñu devoir en tant que républicain mooy atte sunu devoir mooy interpeller le président de la république pas les petits fonctionnaires yi nekk derrière mais le président de la république mooy na woo le président Bougane Gueye Dany ñu toog ci table parce que même les grandes guerres mondiales ont été discutées autour d'une table donc euh, responsabilité président de la république mooy mu woo euh, le président Bougane ñu waxtaan xool nan lañ mën a trouver une solution pour permettre à ces pères et ces mères de famille yi nga xam ne donc euh, ils font face à des à à des charges énormes ci wàllu inscription ci wàllu euh, scolarité ci wàllu dund ak fay lois je pense que c'est pas le bon moment pour créer une crise sociale dans ce pays là. waaw yëgoon nañ ko avant tey ndax temps ñu ngi koy wax ci télé yi ñu ngi koy wax ci rajo yi wax dëgg man maa ngi Italie mu metti ma dama toog sax benn jour ci salle bi ma ne lii il faut ma dagg bee dem Sénégal su ma demee xañ na doole ji bariwul wante ma jàpp ci lu ma ci mën a jàppee ndax samay kàddu xañ na guddul soriwul waaye kenn ku moo ñu yee wax dëgg yàlla def ñu yee carrément si lépp lu xew nag. waa lépp loo xamante ni tey liggéeykat bi def koy liggéey am ay tâches yu muy fay jàpp naa war nañ ko mën a régler nu dundee te Bougane def na prêche wax na lu leer naa ñi kon wax loolu lañ mën a jàpp ñun ñun nekkuñu mouvement gëm sa bopp de ñun MSEC lañ ah, Karim Meïssa Wade la ñuy soutenir te mooy suñu président waaye lu lu metti dafa metti ndax lii ñu ko teg nii teguñu ko Bougane de ñoom bu dee dañuy xeex ak waa gëm sa bopp ñoo war a dem ànd ak waa gëm sa bopp si tibu tànk yeeg ñoom seen ñu xeexee ñoom pas ñu xeex si bi ndax média bi comme li ma la ko waxee rek su fekkee dafa am ay tâches yu ñuy fay dañ koy teg normal mu defee ko comme ko niñ ko war a defee te jàpp naa kon ñu ngi ci novembre war nga mën a muñal nit ki décembre ba janvier nga xool at bi jeex ba xam fan ngay mujjee ak moom. d'après ñun information yi nga xam ne jot nañ ko moom mus sa wàccoog yoon ci li nga xam ne fi ne tey euh, moom la war a def fay na ay mais ñoom dañu ñëw encore ne dañuy def redressement. fiscale bu ma juumul donc ci kaw redressement boobu ñoom ci lañ nekk xañ na nag li ci biir lépp maanaam xamuñu ko mais en tout cas moom li nga xam ne moom war na koo fay diggante ma nguur gi moom mi ngi ko doon fay mais bu fekkee dafa am ay yeneen redressement yoo xam ne ñoom ñu ngi koy def peut-être loolu ci seen biir la loo xam ne peut-être am na ci loo xam ne ci ay dossiers yoo xam ne suñ xam-xam wala boog suñ dégg-dégg àggagu ci mais dans tous les coups yaakaar naa état am na nu mu war a doxalee ak société boo xam ne Sénégal la nekk en plus ab sénégalais moom ko ci yeneen condition yi bokk condition yi voilà tey jàppale leen ñu am doole parce que ay sénégalais sénégalais ku mu tay sénégalais fii liggéey voilà donc ñooñu dañ leen war a dooleel mais pas ñu leen di néewal doole ba xam ne maanaam ñi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey ñu dem en semence quoi. non non loolu mooy li ma wax nii rek tey sénégalais yi ñoo ko moom du yëfu Bougane yëfu sénégalais yi la ay ndaw ñoo fi liggéey ak ay ay borom kër ay njaboot kon yaakaar naa ko yàq ñooñu nga ko yàqal kon def naa loolu maanaam peuple Sénégal duñ seetaan ñu koy yàq ndax sénégalais yi ñoo ko moom ak doomu sénégalais yi ñoo siy liggéey góor jigéen ñi mag ñi ndaw ñëpp ñoo siy liggéey kon loolu Bougane moomatu ko sénégalais yi ñoo ko moom. d'accord MSEC nekk mouvement boo xamante ne jàppale kii di Karim Wade te Karim Wade bokk na ci mouvement yeewi askan wi. waaw waaw waaw waaw MSEC moom moom maa la boo xam dañ ko créé pour jàppale Karim Meïssa Wade waaw ci la bokk waaw. ci la bokk Karim ci mouvement Yewwi Askan Wi la bokk ñu gis ne fan yii passé Bougane Gueye Dany daal dina ci génn naka ngay est-ce que euh, yéen waxoon ngeen ñëw taxaw fii pour pour défendre ki nga xamante ne mooy Bougane Gueye Dany. Euh, waaw loolu du dara maanaam euh, maanaam lii nii jotewut ak dara politique bi dégg mi la wax lii Bougane moomatu ko sénégalais yi ñoo ko moom. peuple Sénégal ñoo moom des médias seen alal la lool jotewut ak dara politique bi Karim Wade sax wàllu askan bi la bokk mais jotewut dara. maanaam lii buñ ko bëggee tëj rewul dañuy teg loolu yëpp fépp ñëw taxaw si ginnaawam ànd ak moom xeex si ba ba lépp lu ñu si fekk rek baax na. kon su ma déggee ni nga waxee en dehors de la politique euh, Bougane ak Karim Meïssa Wade jote wuñ dara. non non non jote wuñ dara. donc kon mën nañoo wax ni Karim ak euh, Bougane ak Macky Sall waruñu jotee dara. waaw Macky Sall même ak Bougane waruñu jotee dara waruñu jotee dara <laughs> maanaam fi mu toll nii daal affaire bi nii nii politique laa gis ni moom moo si bëgg dugg daal mais yaakaar naa ni euh, daal lii nii jotewut ak dara politique daal ndaxte askan wi ñoo ko moom di si liggéey ko laal daal Sénégal nga laal. waa je pense que population bi nañu gën a alerter xam ne euh, au delà de la personne de Bougane au delà euh, de personnes yi nga xam ne ñoom ñoo fiy liggéey c'est un outil boo xam ne c'est un outil sénégalais parce que le groupe des médias est une propriété sénégalaise parce que secteur privé la bokk te secteur privé moom mooy doxal réew Euh, état du ko joxe day favoriser les conditions mais secteur privé ñun ñi nga xam ne ñun ñoo yor entreprise ñoo mën a joxe emploi donc état li mu war a def mooy mettre en place des conditions idoines pour permettre euh, à la création d'emplois mais surtout à la sauvegarde de ces centaines et ces des milliers d'emplois yi nga xam ne qui ont déjà été euh, créés par les par les chefs d'entreprise monsieur Las Badiane euh, responsable APR à Grand Yoff